aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani rahim barkeb sëriñ tuba xadim rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru koor wi di ñaan bépp xeetu jaamu yàlla bu ñu ci def rek suñu borom nungul nu ko ci barkeb sëriñ tuba xadim rasul niñ koy ànd ak yéen at mu jot ci naafile yi nga xam ne nii dañ koy amal ci diirub guddee weeru koor wi te ñu jukkee ko ci xoratul ay di téere bu am solo boo xam ne nii Serigne Souhaïbou Mbacké ibn Xaadim Rasul moo ko bind guddeeg ñaar fukkeel ga ak benn ku ci julli ñeenti rakka rakka bu nekk fatiha benn yoon lixlaas ñaar fukki yoon mel na ni ku moom àdduna ak la ca biiram dundale ko ci yoonu yàlla mel na ni itam ku jàng tawreet ak injiil ak zaboor ak forxaan te buy génn àdduna dana mel ni bis ba mu gane woon àdduna ci ñàkk ay bàkkaar kon loolu moo di ñaar fukkeelu guddi gi ak benn ñeenti rakka la rakka bu nekk faatiha ak lixlaas ñaar fukki yoon